paso. am nañu mbégte ak contentement bu mag ànd ak yéen seen émission Kouthia Show di gërëm képp koo xam ne yaa ngi seetaan rawatina ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci réew mi ak ci bitim réew euh, sous l'égide et la bénédiction de tous les khalifes généraux njabootu Cheikh Omar Foutiyou Tall yëpp ñu ngi leen ziar sëñ Mountakha Bassirou Mbacké khalife général kul murid yàlla fi yàgg te wér sëñ Bass Abdou Khadre bi yor kaddu kër ga yàlla yàlla gudd faram sëriñ Babacar Mansour Sy khalife général kul Tidiane yàlla ko yàlla may fan bu gudd ak wér gu yaram moom sëñ Mbaye Sy Mansour yàlla yàlla gudd faram sëriñ Mouhamadou Mactar Laye khalife général des Layènes yàlla ko yàlla defal jàmm may ko fan bu gudd tudd Serigne Pape Mahi xale bu Medina Baye yal na yàlla gudd fanam Serigne Cheikh Ahmed Tidiane xalifa Niass Salawa Niass ñu ngi koy ziyaare ko ñaanal kenn jàmm Cerno Sama Samora bi nekk ci Fouta di Cerno Waliya bi Fouta yal na ko yàlla defal jàmm imam Fansou Bodian xalifa général de la comité euh, Joola ca Bignona ñu ngi koy ziyaar Cerno Abdourahmane Bari borom Bogal Cerno Bachir Tall ak doom ji ki nga xam ne mooy Cheikh Omar Euh, euh, ñu ngi koy ziar di ko ñaanal tamit euh, fan bu gudd ak wér gu yaram moom Cheikh Omar Bachir yàlla ko yàlla defal jàmm sëñ Abo Mbacke xalifa sëñ Fallou Mbacke sama papa sama sëriñ sama soppe yàlla ko yàlla may fan bu gudd ak sëriñ Muniru Jigéen xalifa sëriñ Amadou Baro Jigéen Chérif na xëppee ci àjjana gën a kawe sëriñ Cheikh Bekay Kunta bu Ndiassane sëriñ Fallou Mbacke docteur docteur ci zahir ak ci baati ñu ngi ko ñaanal kenn jàmm fan bu gudd ak wér gu yaram sëriñ Assane Seck xalif bu Thiénaba sëriñ Cheikh Salim Mbacke xalifa sëñ Salim Mbacke ziar nañ ko sëriñ Ibrahima Khoudia Mbacke ñu ngi koy ziar Cerno Bokar Alpha Ba nekkoon ca war a fonde yàlla na xippee ci àjjana gën a kawe Cerno Mamadou Arma Gueye ci ñàkk di Alaaji Mouhamadou Gueye ci bu Habib Gueye ñu ngi koy ziar sëñ Euh, ki nga xam ne mooy Thierno Hamdou Rabi euh, Ndiathie nekkoon waaliyu ci Medina Ndiathie ba ci àjjana gën a kawe alaaji Ousmane Ndiaye ziar nañ ko alaaji Seydou Sow tamit ñu ngi koy ziar soppe sëñ Fallou dëkk ca Karim Mbacké nekk ci Ndindi ziar nañ ko ak Serigne Mama Sougou Wadane moom tamit ñu ngi koy ñaanal kenn dalu jàmm cardinal Théodore Adrien Sarr Benjamin Ndiaye abbé Jean ak suñu yaay tedd nekk ci Popenguine ñoom ñëpp yàlla na yàlla barke ak fan bu gudd ci barke yonte yàlla Yesu Christa Thiam Serigne Mansour Sarr chef religieux dëkk ca moom lañ dénk suñu yaay Adja Kinesi Adja Kinesi yal na faram suñu xel day dem ci Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum fi xalif général kulu Tidiane yàlla na ci àjjana gën a alaaji Tafsir Sakho Ilimane a di imam ci Banjul alaaji Haala Mbaye bëgg mbaxal ca Serekunda Serigne Gora Sey serviteur de l'islam imam Kassoga sama nekk foofu ca Casamance góor gi Ablaye Niang nekkoon jàngatu xasaar yàlla na xippee ci àjjana gën a sëriñ Bara Cissé ca Jaxaaw ziar nañ ko ak njabootam alaaji Basiru Touré nekkoon xalifu Daaru Ridwan yal na xippee ci àjjana yu gën a kawe alaaji Habibu Touré nekk ca montagne ba jàmm may ko fan ci àjjana yal na ko yal defal jàmm waaye tamit ziar nañu Serigne Modou Faye Gueule Tapée Kéemaanu borom Touba alaaji Sanjiri Diop ak njabootam foofu ndombo alaaji Moustapha Sarr te ndombo alaaji Serigne Mbaye Dieng ñu ngi koy jaaral ñu ngi koy ñaanal yàlla xaare ko ci àddina gën a kawe maam Modou Maktar muhaddam loon ci jamono Seydi Hadji Malick Sy rabia taala anhu maam Thierno Niang maam Magay Guèye maam Mankeur Niang maam Birane Diop maam Issa Sarr waaliw kaamin yi nekkoon ca ndombo ñoom ñëpp yal na leen yàlla defal ca fa ñu nekk waaye tamit alaaji Sosa Ndiaye nekkoon di ñaan yàlla xëppiloo ko ci àjjana yi gën a kawe Serigne Ndiaga Ndiaye xalif ba nuyu nañ ko ki Ousmane doom ji nuyu nañ ko Sosa Ndiaye turandoo moom tamit nuru nañ ko ci njaxerat alaaji Alassane Mbaye taalibe Aliou Kaamil na dëkk ca Warso gi moom tamit ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm may ko fan bu gudd ak wér gu moom Thierno Aliou Thiam alaaji Maktar Dramé xalif général bu Dramé ndimb alaaji Banfa Karamaxo Sanoxo xalif général bu Touba Sanoxo alaaji Baba cheikh baba jong fii sa alaaji baba jong mu xadam na ci jamono seydi hajj malik si rabiàl taala anhu sëriñ ahmadou seck xalifu xalifu alaaji set seck ca xurdaan imam mansour seck tamit ñu ngi koy ziyaare ko ñaanal kenn du jàmm cheikh baye seynabou fall xalif bu koosi yal na yàlla gudda fanam waaye suñu papa ju baax ji di cheikh ibrahima Cissé mu xadam la ci yoon ba yàlla ko yàlla defal jàmm euh, njabootu Serigne Bakary Niang ñetteel xalifa maam Cheikh Amadou Bamba Niang ziar nañ ko alaaji Mouhamadou Aysata xalifa général bu Guet Ardo mi juri a ko Budu euh, kër Mama Sa ziar nañ ko Serigne Mouhamadou Moustapha Sow waaliyu Kaamil xalifa maam Abdoulaye Sow ca Dagana Serigne Jili Samb marabu chef religieux ñu ngi koy ñaanal kenn waaye tamit di nuyu ki xam ne mooy alaaji Seydou Nourou ba nekk Paata Galo yàlla ko yàlla may fan bu gudd suñu baay ju baax ji di Alaaji Baaba Lamin Ñas toogal fi njabootu Baay Ñas fii ci Dakar Parcelles Assainies ziar nañ ko Cheikh Mahi Cissé bu Alaaji Aliou Cissé ziar nañ nañ ko Serigne Cheikh Ridial nekk ci Daara euh, euh, ñu ngi koy ziar ci biir dina Ndiaye bi la jeunesse taalibe Baay boobu nga xam ko yàlla may fan bu gudd ak wér gu yaram Cheikh daal yàlla yàlla gudd fanam njabootu Alaaji Mbàkke Ndiaye radiyallahu taala anhu ziar nañ leen ak suñu papa ju baax bi di Chérif Abdoul Moutaleb Tidiane sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane ca Pikine njabootu sëriñ Xaalis Cissé Touré ca Fass Touré sëriñ Mouhamadou Kabirou Sarr moom tamit ñu na yàlla gudda fanam imam euh, Lamine Sarr nekkoon ci HLM nag moom doon mu jiite na ko yàlla xara ci gën a kawe doomam bi nga xam ne mooy taawam di docteur Mbacke Sarr moom tamit yal na yàlla gudda fanam docteur bu te yiw yiw ci xam-xamam waaye tamit baax yàlla ko yàlla may fan bu gudd moom docteur Mbacke Sarr Serigne Abdoulaye Ndiaye xalil xalifu baayam Serigne Dim Ndiaye ca Kaymor ziar nañ ko Abdoul Aziz Diaw nag mu ngi ca njaboot ga moom tamit ñu ngi koy ziar ak Serigne Badara Diop xalifu baayam Serigne Cheikh Diop kooba moom tamit ñu ngi koy ñaanal kenn du jàmm mbokk yi alaaji yéen ma deer mu ngi leen di ñaanal jàmm yéen ñëpp ñu tamit ñu ñaanal jàmm ñun ñëpp yàlla may ko fan bu gudd ak yàlla gaa ngi nii si taalibi Serigne Babacar Sy ba taala anhu yàlla ko yàlla jàmm mbokk yi alaaji yéen ma deer ci Louga la dëkk waaye Cerno Cheikh Umar bu Bachir Taal suñu baay ji def na jëf ju rafet moom Cerno Cheikh tànk jàmm yi mu dox ci diggante njabootu sage femme bi ak ki gaañu ak sage femme yi dox na ci tàmm jàmm ba ñu dem yóbbu seen jaal ba yaayu xale gu jigéen ki jéggal ñi nga xam ne ñoom ñoo def jëf jooju ba jëkkër ji tamit jéggal ñooñu jàmm dellu si ci baaxaayu ak tànku Cheikh Omar Cheikh Omar bi wax fa dëgg yàlla bu meloon nii mu jaaxal ñu ndax baayam mooy xalif général kullu Omar yéen moom nag mu jege baayam nekk ay tànkam nekk bëtam nekk léppam muy ku yaru nag dëkk fii ci Wakaam waaye nekk ci Louga ci wetu ci peggu baayam xale bu dent secret yu bari toog ko papam am cofel bu sori ci moom moo jox tànk jàmm ba fu mu ne nii ña jàppoon maire yëpp giif nañu kenn du Cheikh Oumar sama xarit bi sama sob bi kii am kii ko gis ni fi rek lay demee kii Cheikh Oumar bii lu mu ragal wax xëy na ci seet yàlla rek waaye du du du ku ragal dara te du complexe wul dara ndax këf yóbbu ko teraanga yëpp a ngi ci kanamam lu mu dugg rek jàmm ko kon ñoom seet Cheikh Oumar jëf ju rafet gi nga xam ne moom la jëf ba delloowaat def déclaration ci liñ ko nangul ba am ci ndam ñu seeti Cheikh Oumar baax. ku tedd ku baax Cheikh Omar sama xarita ah? Cheikh Omar saa yu ma ko gisee loxo ci poos poos ci loxo dafa nekk lu gërëm moo tax gisante wuñu waaye xam naa ne lii bu ko seetaanee balaa émission bi di jeex ak wax ju sedd ga mu ne ma ah saay saay bi foo nekk maa ngi lay booleek diw ah da dafa mu daf ma mu boole ma diw mais dama gis ne acte bu rafet la def Cheikh Omar ku baax la ñu seet si Cheikh Omar ku tedd la Cheikh Oumar Tall doomu Cheikh Ndobali Tall borom jàmm jaaji Cheikh Oumar Tall Cheikh Oumar Tall doomu Cheikh Ndobali Tall borom jàmm jaaji Cheikh Oumar Tall assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu wax fa dëgg yàlla ñun lii rek nañu am mm-hmm. njaboot gi dafa yaatu ba nga xam ne loo ci teg rek nit ki dana ko yëg mm-hmm. euh, Louga nag euh, sama waajur mun fee nekk dëkk bi di tàkk moom mu ne tekk déedéet moo taxit ba ci nit ñi ñëwee ci man ne ma dox ci tànk jàmm dama ne maa ngi koy rafetlu alhamdulilah waxtaanaa naag njaboot gi ak ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi liggéey ci hôpital yi nangul nañ ma loo xam ne tey diisoon na lool pour ñu nangul ko nit waaye bi ñu waxtaan man ba pare dem ci sama baay ci sama waajur ci sama soppe sama wëllëre bàyyi di sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke xalifa général kul murit bañ fa demee waxtaan ak moom wax dëgg yàlla ci tànk yi ma jógoon ñaan yi mu ci ñaanal loolu bokk na li gën a leeral yoon bi yoo ko léegi njaboot gi nag wax dëgg yàlla ci weeru koor li suñu bàyyi bu tedd bi jàngal rek mooy fexe ba jubale njaboot gi yépp ñëpp bokk ndey bokk bàyyi ndax li dal ko docteur yi dal njaboot kii nga xam ne moom moo doon mucc ba yàlla jël bakkanam lu jiitu suñu dund la yàlla bindoon na ko wallaay lii rek lii rek moo gën lii rek ko yàlla defee woon boo amul nag waqin ci baatin mën ngaa topp mer ci zaahir ba dugg ci loo xam ne ëllëg da nga ko rëccu ndax weeru jéggal la wéeru yërmande la te ku ci yàlla jël sa bakkan neel alhamdulilahi rabbil alamin danañ ca rafet njott lool lool rawatina tout tànk bu xamul dara te tamit muy jigéen kon nag dañuy rafet njort moo taxit tey ñuy sant yàlla di wax alhamdulilahi alhamdulilahi alhamdulilahi ndax noon naa ko dox te du sotti wala ñu gàntal ma waaye nangul nañ ma ko nangul bi ñu ma ko nangul nag moo tax tey ma ne xaaral ma génn wax ne alhamdulilahi rabbil alamin ndax nangul nañ ma ko nangul ko sama baay nangul ko sama sama soppe di sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke xalifa général kulu murid ndax moom sama baay ñu dara moo taxit tey daal dama wax ne kontantement bi ma am ak jaamu yàlla biñ ci jaamu ci weeru koor gi ñii nangu ndogal ñi nangu ne war def nañu njumte ñëpp ànd joxante loxo ñu delluwaat lépp teg ko ci loxo yàlla alhamdulilah lii nag mooy àddina liñ ci mën a jàngatee mooy jëlale jëlale jëlale ak jéggale ak seet tamit weer bi mu tombel te yàlla ne weer la boo xam ne moo ma gënal fukki weer ak benn yi am ci fukki weer ak ñaar yi képp koo xam ne wax fa dëgg yàlla am nga loo xam ne da ko ci ñaan boo ko ci ñaanee danaa la ko may moo taxit buñ ci doxee tànki jàmm yàlla def ci jàmm alhamdulilahi rabbil alamin kon dañuy sant yàlla rek ndamu lislaam la nag ndax lislaam a ci dox diine moo ci wax ak ñi ko séq tamit bokk ci njaboot gi wax dëgg yàlla ñu nangul ma ko ci nangu gu sedd guy te teguñu ci benn condition alhamdulilahi rabbil alamin di sant sama baay Cerno Bachir yal na yàlla may fan bu gudd ak wér géram di ñaanal tamit sama baay Serigne Babacar Mansour si yal na yàlla gudd fanam sama baay bi nga xam ne mooy moom Mamadou Mactar laay nekk ca Cambérène tamit yàlla dafa ko jàmm njabootu Baay Ñas gi yëpp yàlla dafa leen jàmm ndax lii nag moom ndamul islaam la alhamdulilah su ko defee nag gouvernement yi yu mel nii dañuy jël ëttu diina yi dugal leen ci am na coo yoo xam ne nit diine yi rek ñoo ko mën a dox ndax am na loo xam ne buñ ko ñaanee taalibe yi ñu daal ñu koy bàyyi waaye bu ñu jëlee ay administrateurs yoo xam ne dañuy ànd ak tàngat mën nañu dem ci njaboot gi mu ëlbatiku def saafaan ba wallaay wallaay. <laughs> wallaay wallaay. wallaay wallaay wallaay. wallaay wallaay. juri maam weltima yo allah soremi jurimama weltima wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi إن الضريح Mamadou Kani Bey mii dafa bind sept sept juróom-ñaari dictionnaire livre euh, bi ci gën a fas mooy la démocratie universelle Kani Bey bii nga xam ne dañ ko doon toppandoo fii waaye nit ku baax la ci biir livre boobu nag def ce rendre hommage Kouthia baale ko ci duut baaram wax ko kon Kani tey dañ koy ñaanal yàlla dafa ko jàmm meeru dulam bi dulam yi juróom-ñaari livre dictionnaire lépp mu bind ko ci histoire u Sénégal Sénégal ni mu toll ci ay région ak ay département am ak ay commune ak ay village am yépp mu tënk ko bind ci loo xam ne wax dëgg yàlla ku ci dul baaram xam ne ne kani liggéey na waaye li ma ci gën a neex moom mooy am na foo xam ne dem na ba wax ci li nga xam ne mooy la démocratie universelle ci biir livre mi yooyu dund na ci turu Kouthia ba sargal ko ci kon moom bu ñu sargalee ci ay livre am dañ koy delloo di ko sargal moom monsieur le maire Kani Bey yàlla ko yàlla defal jàmm goro ngi nii ku baax ngi nii ku ñëpp jàpp ci wax joo xam ne wax dëgg yàlla su ko waxee ren déwén boo ñëwee fekk la mu waxoon dara du si soppeeku kii bokkul ak ñi nga xam ne dañuy dem fekk ay mag yi de <laughs> kii nii fa mu jàppoon la tey de nit ku baax la yàlla ko yàlla defal jàmm danañ ko invité nag fii mu wax ñu lu tax moom turu Kouthia boobu mu dugal ko ci livre bi nga xam ne bind na ko yàlla ko yàlla defal jàmm démb dañ fay nekk naan awaloo awaloo awaloo ndekete du awaloo kin ne Adja loo la Adja Kinneloo ci produit local yi nga xam ne PDL yi di produit euh, de développement local moom da cee am ndomb tànk bu mag ca Saalum jigéenu Saalum yëpp toogatuñu ndax moom ku nekk gëm na lii nga xam ne moom ngay jaay en détail buñ ko di fay day industrialiser ko mën naa indi koom-koom ci sa bopp ak sa njaboot moo taxit caakiri mango yooyu ak caakiri euh, cere mbuumam yooyu yooyu nga xam ne ay arawul euh, ceeb la mu def ko ci ba sénégalais yi mën koo lekk moom ajaratu Kiné loo yàlla ko yàlla defal jàmm euh, nee na bu ñu waree ba pare premier plat bi ñu toggal mooy ceeb boo xam ne du ceeb te boo ko lekkee mu nekk ceeb te céréale locale la moom lañ tuddee Kiné Lo waa da nga ko lekk am wér boo xam ne koo téye bu dee mbër la yow sax bu ma Balla Gaye ñëwoon fii na ma Kouthia pardon dama naan ko pardon ci lan mun naa koo dóor ko sañ mu réew ndax kattan ak doole kon moom Adja Kiné Kiné Kiné Lo yàlla ko yàlla defal jàmm danañ gën a ñëw ci produit yu baax yoo nga xam ne moo ngi koy doxal ci biir réew mi waaye joyeux anniversaire à Dieyna Dieyna Diong depuis Maroc longue vie santé bonoor a Dieyna Diong yàlla na yàlla defal jàmm anniversaire bi tamit à yaakati Wade sama yaay sama xarit loo dund doyul ñu ngi lay ñaana fan bu gudd ak wér-gu-yaram neuvième mois du Sénégal ca Canada la grand bal de Montréal place des arts lay am président ba di Michel Euh, di bureau exécutif bi euh, ki nga xam ne moom mooy Youssou balde mooy président conseil d'administration bu regroupement général des Sénégalais de Canada waaye Michel Habas bi daal ñoom ñoo ngay préparé soirée ba nag mercredi lay doon lay tombel le 25 mai foofu ca Canada muy neuvième édition mois du Sénégal ca Canada man nag septième édition ba fekkoon na ma fa ñu teral ma yóbbu ma ci hôtel yi gën a baax di ma jox may lekk jënd ma sërica jox ma ay xaalis bu bëri yal na yàlla defal jàmm kenn buggul mu Serigne Moustapha ah, ak sëtu yaa Fatima yi ñoom ñëpp nekk ca tableau Tivaouane yal na yàlla dafa jàmm gis nga sëtu yaa Fatima yi ay xale yu nekk nag ci banlieue bi lañ du nag ku nekk rek ay ñu bëgg nekk sëtu yaa Fatima day am pasteef ci yow ak cofeel bi nga bëgg am ci yoonu siraatal mustaqim waaye sàmm sa bopp waaye tamit sàmm sa kàddu bu boo génnee rek nga doon modèle ñu xam ne kii ci sëtu yaa Fatima la kii nga xam ne nag mooy seen sëriñ ki nga xam ne mooy seen gidd di soppe sëñ Moustapha Sy moom kenn bëggul yàlla na ko yàlla defal jàmm nit ko yàlla may la ci baatin muy ñaanal di dimbali nit ñi ci ay jafe-jafe mm-hmm. suukaru koor boo xam ne machine à laver nañuy jox mango soo gis lu ma téeméeri machine à la jox ay jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci ci ci banlieue bi foofu nga xam ne root ak fóot da leen sonaloon xam nga machine à laver jox nag yaa da war ngaa calculer courant ba am nañ lu ñu leen duut <laughs> waaw loo xam ne ne bu naree diis si yow rek ñoom ñu taxaw ko waaye ku jara dem seeti la nag nit ku yàlla baaxal la muy faj ay nit yu bëri nag ci ay jafe-jafe yoo xam ne nit jël na malaat fii yóbbu ko ci àdduna wër ba sonn fekk ki lay faj a ngi fii ci Dakar gii mun ngeen ko woo ci 77 502 15 63 loolu mooy WhatsApp ba bàyyil vocal moom dana la tontu jox la rendez-vous mën ngaa woote tamit 77 030 48 li ci tegu kii euh, numéro bii dafa eggul kii ah li nga ko bindee eggul de ci noonu la ñëwee kon kon si yow la war a koor gee la jàpp waaw dinaa ci dellusiwaat euh, ah ah bi lan la 77 030 48 amoo ko après yu ñëwaat ci kon nag euh, bés la boo xam ne nag euh, nit ko yàlla baax la ñu ngi koy ñaanal yàlla dafa ko jàmm may ko fan bu gudd ak wér gu moom nag ku ko bëgg a gis mën ngaa ñëw ca talaata ya ak àllarba ya ak ah 77 030 48 40. waaw kay moom mooy numéro bi nga xam ne nag boo wootee di nga am ko décroché waaye bee moom da ngay bàyyi whatsapp rek danañ ca tontu ba si nga xam ne nag moom lay gisante nit ñi moom mooy talaata àllarba alxames ak samedi diggante 9h ak midi waaye ku baax la nit day jóge ba Inde fa xam-xam fekk baax ñu di ko seeti ku oyof yàlla ko jàmm may ko fan bu ko dëgg yor-gu-yaram mbokk yi. ma dikke nee na am na ku génn ca PDS naan ma dikke ñaar la mu signé moo tax Karim Wade toog fa ba tey nee na moom kenn du ko tiiñal. kenn du ko ta taatañal te mu toog fi ma dikkee ngay dem tontu tontu ñu sedd ma dikkee ñaar. mbokk yi na def yàlla defal jàmm weer la boo xam ne weeru jéggale la ak weeru wax dëgg yàlla du weeru histoire mm-hmm. du weeru werante du weer boo xam ne dañu war a xiiroo ak ŋaayoo man yoruma yoruma man yoruma loo xam ne ba su ma ko signé dañ naan ma dikk signé na ko kenn dootu ko kenn dootu ko laal ci déedéet wax ji ñuy wax naan ma dikk ñaan la ma signé ak protocole ba moo tënk Karim Wade loolu ay wax la Karim Wade magam jëmm la baayam ngi dund waajuram ngi dund man mënumaa signé loo xam ne tey dañ naan Karim Wade pour mu dugg si foow ma dikk ñaa taxaw déedéet am na wax yoo xam ne du sax waxu public loo xam ne bañ koy def ak bañ koy waxtaanee dañ koy def à waroo ko génn rek xëy teg ko ci marché bi ku ci xamuloon sax na waa lan la moo tax gis nga réew dañ ko xool ñu ngi koy dénk ak tamit am na ñoo xam ne kàddu ñu ngi koy dénk parce que boo nekkee porte parole ci benn kuréel war nga chargé de communication la ngay communiquer war nga koo xool ba nga xam ne boo ko génnee kenn du dar sa gémmiñ wala boo waxee ko ne waa kii li mu wax ni toj na réew mi man Karim Wade sama doom la Karim Wade sama frère la maag baayam la woon te mus sa ñaaw bi ñu bëggee dox sama diggante ak Ablaye Wade damaa taxaw témb ne ko ak lu munti xaw ak lu munti daw ñaaw du sama diggante yow ko mu sopp ma tamit diitoog sama diggante moom lu jiitu politique la ndax man maa doonoon avocat am te pourtant avocat la kon nit ñi bu ñu jaxasee di yee fitna ma dikka ñaa du ma dox ci loo xam ne wax dëgg yàlla ëllëg damay génn ñu ne Karim Wade dama dikka ñaa moo tax ñëwul parce que protocole ba la mu fa signé la laa signé lan laa signé réew bu ñu ko nekkee dañ ko war a defar waaye réew moo xam ne tooxi doona toj toj taqal ni ki indi ay jiixi jaaxa maa ngi soo a comprendre nag lu bëri nag ndax sëñ Muntaxa ba sëñ Mbàkke mu sell mi nga xam ne neewoon na ma am na lu gën politique li maa ngi koy soog gëm li sax mu ngi da ko wane parce que loo xam ne defoo ko waxu ko ñu tiiñal la ci teg ko ci ne Karim Wade Macky Keña la mu signé moo tax Karim Wade toog la laa signé. la laa signé. la Adja Adja yàgg nañ ko yàgg naa big de waaye naa xool big. ndax man xam nga na tey dépassé naa taxaw ci ay tribunal di plaider ci ay yoo xam ne wax dëgg yàlla sama sama sama sama taxawaay tey ci ci li nga xam ne moom sama métier. bu dul ci yoonu Serigne Touba ma ko def ci leneen. ab taalibe mu day am problème war ak am ko problème na ma jukkee damaa nekk ci ay tolof tolof ma ne ko xaaral ma am ku ma la boole parce que parmi le avocats on se connaît xam naa ci ay xale yoo xam ne kon comportement ma dikk nañu yor su ma la mënee orienté orienté la su ma lay conseillé conseillé la waaye dama indil ay signature yoo xam ne moom naka génne ki ka wax naka génne man kenn du ma ci weer bu set nekk kenn bu ma kenn taxal nag ah, naka génne naka dégg waay seen wet ma dikkee toog seen télé yi ñu jox leen micro rek ngeen mel ne ku ñu jox essence nga commencé tépparli mel ne ku ku naan looy tàggoog sa sago ma dikk ñaa moo signé protocole bi ma dikk ñaa moo téye Karim fa laa ko téye kan moo téye Karim man téye ma ko Karim Wade sa son frère euh, frère Macky Sall ñoom ñoo xam la lañ wax waaye du man maa taxaw ne bu Karim Wade lii ak lële mm-hmm. buñ ma merloo nag. parce que Cheikh Massamba si njabootu sëñ Massamba laa bokk de. te am na loo xam ne su ko dogoo tey du baax de. fii toj na fii ne nar a fii toj moo tax bëgguma gaaw a mer ndax suñu benn xam ne ma ma dëkk boo meree da ngay élégant eh. ma ne mu ne taalaay boo meree da boo meree macha allah da ma ne ko lii mu ne boo meree macha allah ki la gis lay sopp ma ne ko man du ma mer du ma nit mer du ma nit mer waaye nag kii bind kii wax wax ji tooñ na ma parce que man signé wu ma tey signé wu ma ëllëg lan laay signé mel ni day sekk signature ba ka wee lan laa signé <laughs> ah ah lan laa signé man kay sama signe laa yor di ree rek lan laa signé ak ku signé ak ku gomé ak ku tamponné lan laa signé rahman rahim Euh, grand chant de Serigne tubaa organisé par Serigne Mahfous Mbacké le 21 mai euh, foofu ci HLM Grand Diourbel pare bi nag di Serigne Khadim Lo Gaydel ñu ciy wax nag na ci ñëpp teew ndax bés la boo xam ne nag Serigne Mahfous Mbacké ne daal euh, cant la boo xam ne wax dëgg yàlla luñ ciy xaar rek mun na kawe suñu jort di wax nag képp ku ci xam ne yaa ngi ciy ñëw ci dem bi ak ci dellu bi yëpp tànk yiw nga fay jëlee tànk yiw ngay yóbbaale mu ngi ciy waroon ndax bés ba kañ ko kañ ko bàyyeele ak kañ ko parane mooy Serigne Khadim Lo Gaydel yàlla ko yàlla defal jàmm may ko fan bu gudd ak wér gu yaram waaye nag cant Serigne Touba bi bu mag lay doon ndax Serigne Mahfous Mbacké mu ngi ci woo mboolem jullit cinquième édition journée du prophète Mohammed sallallahu sur lui organisée par la Daïra Nasrullahi euh, vendredi euh, et samedi juin 2022 foofu Yoff à partir de 9h à la cité millionnaire près de la mosquée guide religieux bu baax bi di Thierno Yaya Adama Sall bu Kanel moo ci woo mboolem jullit di leen wax nag wax dëgg yàlla juróomeeli édition bi na ñeenti nag moo koy raw ci organisation ñuy wax nag na ci ñëpp teew ndax ñaari fan la mooy diggante ajjuma le 10 ak samedi le 11 juin 2022 lay am ca Grand Yoff à partir de 9h à la cité millionnaire kii nga xam ne mooy Thierno Yaya Adama Sall nit ku baax koo xam ne dafa donn xam-xam ci baayam yor baatin ci baayam di nit ku sedd nga xam ne xaal pulaar yi nekk ci kanal dañ koo bëgg dañuy jóge ba Fuuta di ñëw fii ci Grand Yoff di fekk si bësam bii ndax nit la koo xam ne wax dëgg yàlla la mu làq ci baatin moo ëpp la mu wane ndax ci ci maamam ci juróom-ñaari maamam ay waaliw nañu moom Cerno Yaya Adama Sall bu Kanel yàlla yàlla gudda fanam édition bii nag spéciale la nag ndax journée du prophète Seydina Mohamed paix et salut sur moom moo koy amal ànd ceeg daayira bi nga xam ne mooy Nasrullahi dafa bëgg rasulullahi ci biir xolam ba mu jeex tàkk Cerno Yaya Adama Sall yàlla yàlla gudda fanam te bësam bii na ci ñëpp teew ndax luñ fa waxee lenn lu dul diine rek sargal yëkkati li nga xam ne moom mooy maqaama Seydina Mouhamed PSR Souli Thierno mi juurimaa mi weltimaa yoo àll suren Serigne Ahmed Cissé Ndiéguène porte parole de la Hadra Ndiéguène mooy moo ñu invité laylatul xadr bi nga xam ne euh, suba lay am 28 euh, avril 2022 ca Dakar Gueule Tapée immeuble Diez sëñ bi ne nee na wax dëgg yàlla communiqué bi ëpp na weer ñu koy jàllale bég na trop nee ma lu ñu lay defal man la ñaan rek fii ñu nekk muy gën a yokk place bi gën a neex ak baatin Euh, balaa at bi jeex nag am na euh, ñaari cerno yu nekk Fuuta yoo xam ne dañ may seexal waaw waaw waaw ñoom nee nañ daal euh, daal ñoom daal ci kanam tuuti daal lii daal xam naa naa ko bàyyi ñoom ñu seexal ma parce que waaw ñoom noonu la ñu wax ay ay cerno man mii waaw dañ may seexal waaw dañ may seexal Mati cerno Yaya Adama Sall bii nii mii bii kii boo ko demee nga laaj ko ndax man war nañ maa seexal war waruñu maa seexal boo ko demee dana la Kouthia mii dañ ko war a seexal moom xam na ma mi juri maam weltuma yoo ala suren mbokk yi coow li nga xam ne moo amoon ci diggante ah sage femme yi tey la atte bi ci tribunal atte jàmm lay doon war na lay demee ñu dem seeti débat boobu nday fay mooy ci laa jëmal ci état ak société civile lan moo doon devoir tey ndax tribunal amu na ci yoon war amu ci yoon ñu dem seeti débat boobu eh salaamaaleykum. day ça va. ñuy nuyu ñëpp rek ku nekk sa tur ak sa sant aman mbégte bu mag ñëwaat nag seen émission euh, amal réew Kouthia Show la ñuy àndal amal réew saa su ne rek di euh, nuyu képp euh, kamtan rek yaa ngi toog di ñu seetaan kilifa diine kilifa aada di baalu ñëpp ah di ñaan yàlla sunu bopp nangu suñuy koor suñuy jaamu yàlla jéggal ñu suñuy rëcc rëcc ci barke weer bu sell bi mu mel ne nag Omar koor bi li si des bareetul de Omar yow dafa ngeen niroo ko ñeme koor nag. ndey koor gi li da waaye tey dafa am fu ma fi nga génne eh, ki ma génnee fii tey mooy baax yaay kitiir ah temps baax eh, moo ko ñaw di mati mm. moo ma ñawal nii ne ma bii daal eh, Omar réew yaa ko moom ci si bii mu ngi ko jëndee mu ngi ko jëndee Israël ah, ah, moom moom ko ñawante al man nag mos naa gis tailleur bu nekk waaye tailleur marocain mm. ci baax yaay kitir laa ko gisee waaw dafa jël marocain utal ko palaas ci liggéey mm. moo koy defal daamina moom baax yaay kitir donc maa ngi nuyu euh, kilifa diine yi ak kilifa aada yi di nuyu àdduna wërngal këpp di nuyu son excellence monsieur le président Macky di nuyu madame la première dame tey nag damay daal dugg ba Pire Pire ndooy baan waa parce que nee kii ma wax dafa préciser ne ma ne ma Pire Pire Ndoye Bane nee na fans la daf ñuy suivre atelier couture bi nag waxoon na ma nu mu tudd mais dama ko fàtte vraiment nee na chaque heure euh, Kouthia bu jotee nee na ñoom ñaw bu ñu doon ñëw dañuy arrêté di seetaan Kouthia Show dañuy ree bëgg dee na nag séquence su Omar réew nag <laughs> moom moom nee na ñoom moom la ñuy gën a xaar <laughs> mm, donc euh, euh, defe naa maam Fall Couture la waxoon maa ngi leen di nuyu yéen waa Pire di jël nuyo bi rek teg ko ci sa loxo rek waa Mame Fall Couture ngeen tasaareel ma ko piir gépp ci Piru ndoy Baan kon nuyu naa leen tey moom dédicace bi yéen a ko moom waa Pire nuyu naa leen ziar leen di wax nag maa ngi xaar. Eh, yaa wax ba maa ngi xaar sama ñaam bi <laughs> ndax xam naa ne ku ne ñaam. bi waaw ñaam bi la Pire waaw. Mhm, maa ngi xaar la xamal dara Ndoye Baan budget bi du bëri de. ah lu tax ah, ñaam bi ren nañu fay jaay. <laughs> amul société amul dara. nuyu naa leen kon ziar ñëpp di ñaanalaat ñëpp rek kenn dalu jàmm ak salaam. <laughs> waaw kay jërëjëf kon nuyoo bi am na solo Amar. Mhm. Euh, question bi la njëkk laaj rek procès xamante ne rek. Euh, euh, moo moo amoon sa hôpital Amadou Sakhir Mbaye ba astu sa bakkanam yàlla ko yàlla yërëm xaar ka aljana <laughs> procès bi mu mel tay la tay tay la eh, ndey waaw ndey man lii bettu ma parce que xamu lu tax bettu eh, dema ah. eh. <laughs> eh. jooy ñoo ñorul <laughs> ñorul kay jooy ñorul ñorul kay ndey ah lii jeex na dañ ah. leen baal daal sama jooy ñoo ñorul ndey kay lii daal coow la <laughs> coow la yàlla na ko yàlla yéemale fii mu jeex kii baale na kii nangu na baale ñu ànd dellu liggéey ku nekk dellu sa place ñu bugg ci leneen loolu laa gis foofu laay yem duma ci teg dara ndey dëgg la ma toggaat ko mu ñor jooyi. toggal fexeel ba boo ko yàkkee sama kanam yaay Fall mu mel ni rek Sénégal euh, retard bi nga xamante ne rek moom la moom la ñuy am chaque jour benn affaire day am ñu topp média yi euh, benn une semaine wala mois topp di ci wax di ci wax di ci wax di ci wax ba affaire dafay dund leneen euh, tey nag la woon procès bi ana ban gis-gis ban analyse nga ciy def. waaw analyse bi ma ciy def rek mooy avant tout nan leen baal xam ne ay jigéen lañ. rawatina ci weer wu sell wi ñu nekk di weeru njéggal di weeru yërmande di weer woo xamante ne gars yi dañ ko tuddee weeru promotion loo ci def xëñ na ci lu baax rek yàlla da koy ful kon ñu ngi ñaan ci barke weer wi rek ñu jéggal leen te yàlla tax ñu delluwaat ci seen njaboot xam ni naam du lu ñu rafetlu lu fi am mais xañ na lu fi waroon jaar la rek suñu borom a ko dogalee noonu yàlla na jàmm yàgg famille bi nga xam ne nag moom la affaire bi dal seen kaw mi famille asu soxna la noonu yàlla na leen yàlla may xolu muñ te asu soxna yàlla yeesal yërmande ci moom tabal ko ci àddina yu gën a kawe mook tout tànkam boobu noonu di wax rek gis nga Sénégal léegi man dama yaakaar dañu amatul lu ñu def wala dara mhm. lii yëpp daal dama defe naa jot gu bari moo koy moo koy waral parce que jot gu bari mooy tax ngay jël benn débat di ko débat daanaka weeru yàlla wala deux semaines yàlla nga nekk ci benn mbir toujours nga koy wax nga koy wax nga koy wax. application boo dugg fekk leen fa moo xam TikTok Instagram Facebook YouTube. te lépp ñoo ko indi. même baat bi la wax ñoom ñoom état ñoo ko indi. problème bi ñoom ñoo ko indi. waa ci nag ñoom ñoo deful gouvernance bu normal. parce que sages-femmes li ñu nekkee yéen yéen yéen yéen yéen yéen man maa wax loolu day état am moom état la àndal ndax Macky Sall la àndal ñoom ñoo defu seen devoir moo tax lii am tey ndax sage-femme yi amuñu jumtukaay yoo xam ne moo tax xale bi yee jigéen bi ñoo ñu ko demal ba suba ñoom la ñoom ñoo deful formation bu baax ñoom la état daal mooy ñaaw yaay ba lu jot ñu xëpp ko ci loolu. ñu xëpp ko dey kon mooy ñaaw yaay. yaay est-ce que du euh, ah. sage-femme yi dañu dañu meroon wala amoon problème ba nga xamante ne rek dafa yàgg lii amaal ñu amaale occasion rek bëgg si jooyaale seen ñaxtuwaale jooyaale seen rek euh, naqar bi nga xamante moom la am yëpp est-ce que du occasion si ñoom. mais man lii nii. maanaam waruñu si profité ci occasion parce que du lenn du lu neex loo xamante ne dañ ci war a di profité parce que tey nit ki loo mer-mer xalaatal ni démb da def sa da jàng yor say diplôme def sa thèse taxaw waat. Eh, bàyyil di ma dagg bàyyil di ma dagg laa la wax yaa ma jaxaseet lu ñaaw da nga taxawoon waat. kon pour occasion ak lu mu ak lu mu métti métti ak souffrance xëy na boo mënti euh, dund yow defal sa liggéey ba pare sooy kaas après nga dem kaas. ñu def parce que tamit bakkan médical yi yamalul dara yokk yi. hôpitaux yi moom son excellence monsieur le président am malade dem euh, li mu war a def yëpp def na ko ci santé. des na ba tey mu war la parce am naa pare bu doon jël lépp di ko teg ci ndoor code état. mais di accoucher ñu jëlal la taxi di la wërale taxi si mbedd ba pour yóbbu la beneen hôpital hôpital si biir loolu dafa nekk lam tere. man tudduma benn sage-femme man tudduma sage-femme man tudduma sage-femme waaye état ma yow doo ko tudd. ah si wér état doo ko tudd. jàppoo leen ko doo ko tudd. mën ngeen xeexat si wéru koor waaw da ngeen ñeme koor yéen ñeex xeex leen. man koor man baa leen ma taxaw ne man damaa ragal koor man moom. xam nga tax tax man maa a kannasu. dafoo a jàpp la pantangalu la. da ngeen a ñeme koor nekk leen ci rek. ay yow non dem leen yéen a da ngeen ñeme koor. man moom koor damay baalu ah. fara dama yemale samay wax. kan kay kan da ngeen naa ñeme koor yéen ñaar bay xeexe ko xulo acca lekkal leen ko. ci cër ba siis. waaw cër ba def nii médiation bu am solo la def na lii lii mooy rôle kilifa diine. cër ba siis. waaw Bachir moom dañu koy sant di ko gërëm. parce que jàmm lekk la ñu bëggoon. te dox na ci tànku jàmm. ba jàmm dellu si waat. baal naa la ndax man jullit laa ku ma baal dama lay baal. Sénégal bi politiciens yi moomuñu dëkk ndax kilifa diine bu fi jóg rek jox tànku jàmm si lu mu mënti doon yàlla la waaye tamit nit ñi rus la ba rek jamal baal ma ak de Cheikh Omar Bachir Taal. Taal Thierno Cheikh Bachir def na def na waxal Thierno Cheikh Bachir. Thierno Cheikh Oumar Bachir Taal. Thierno Cheikh Oumar Bachir Taal. ay dafa baax lii moo indi ci moo tax lii yëpp sax ndax jàmm moom jàmm jàmm ko gën. na jàmm yàgg ma àq di baal eh, nga cee boole di jubbanti naa feq yi de. war nga cee boole di jubbanti ñoo xamante ne dañuy kër gu ñu yomb euh, teew gunge leen gendarmerie. war nga cee boole tamit di yedd ñoo xamante ne fu ñu ndey ah? ka bëgg nga wax ak Thierno Cheikh. waaw dinaa la yóbbu foofu ku baax la. moom bëggul kuy gaaruwaale. en direct baa ngi nii gaaruwaale. Thierno Cheikh bëggul nit kuy gaaruwaale. Thierno Cheikh en direct baa ngi nii. Thierno Cheikh bëggul kuy gaaruwaale. Thierno Cheikh bëggul kuy gaaruwaale. waxaale ñi jëwkat yi. Thierno Cheikh profité ci occasion nga waxaale naa fekk yi Thierno Cheikh profité ci occasion nga xam ne plateau bu ñu dem rajo ko bala ñoo ñibbi Thierno Cheikh loolu moom lijjantiwaale ko ah, jërëjëf Taal yàlla sa yàgg Taal maa ngi lay ziar bu baax sa barke maam Taal waaw waaw moo disparaître dans les falaises de Bandiagara ba tey kenn gisu ko Taal <laughs> groupe Xandral Jazz depuis Yoff ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp de la part de képp ko xam ne yaa ngi ci groupe boobu nga xam ne euh, la ñaanal tamit euh, bés bu neex ci koor gi mbokk yi ñuy gërëm képp ko xam ne yaa ngi seetaan émission Kouthia Show di ci ànd ak suñu soppe waaye bu leen moom mooy Bibi Fall nekk foofu ci Île des Saloum moom nee wax dëgg yàlla ña ngay préparé Kouthia Show décentralisé foofu ci Île des Saloum ànd ak équipe Kouthia Show ñu fas yéene fa nag def euh, cinq fan yoo xam ne nag dañuy def émission décentralisée Abdoulaye ci li nga xam ne moom mooy culture ak découverte Île des Saloum waaye tamit jafe-jafe yi nga xam ne moom la euh, doomu Île des Saloum yi di dund foofu moom Bibi Fall nag euh, da cee ànd ak ñun pour ñu mën a fexe ba fësal li nga xam ne nag moom war a fës ak waaye tamit génn li nga xam ne moom mooy la manqué ci dëkk boobu mbokk yi dañuy dem seeti ki nga xam ne mooy Mame Boye Diao dafa def act boo xam ne ci koor gi ñi nga xam ne lañ doon jot ci social te seen loxo jotu seen ginnaaw budget ba mairie ba doon jox nit ñi moom Mame Boye Diao daf cee gaaw ba fexe ñi nga xam ne seen loxo jotuñu seen ginnaaw ku nekk mën a gis sa bopp ci projet bi nga xam ne moom moo moom moo mooy moom mooy moom moo am foofu ca ca ca ca dëkk bi nga xam ne moom mooy euh, Kolda euh, monsieur le maire. waaye monsieur le maire vous êtes en direct dans l'émission Kouthia Show oui. ma lay félicité ci livre bi nga xam ne bind nga ko. Mhm. jëmale ko ci sept livres yoo xam ne nag euh, dictionnaire la. waaw bi ci gën a fës sa intérêt mooy la démocratie universelle. tout ci biir livre yi euh, yaa ngi ma ciy wax ne ma cité nga la Nodo Kouthia. waaw waaw loolu nag euh, xam naa ne il faut émission spéciale mais ci gàttal rek monsieur le maire. waaw juróom-ñaari livre nga yii nga bind nii. Mhm. boo ko tënkee njàngat bi la nga ci bëgg a wax. waaw ñaareel mi mooy bi ci njëkk mooy benn livre mi ngi tudd dictionnaire sur la démocratie universelle maanaam wax lan mooy démocratie. ndax boo seetee. Uh-huh. Euh, li ëpp ci nit ñi dañoo yaakaar ne démocratie moom. Uh-huh. mooy ab wate rek moo def démocratie non démocratie dafa am charte. dafa am démocratie dafa am yoon. démocratie dafa am lan moo ko tax a jóg. mais uh-huh. démocratie am na lum loo gis ñu koy wax am na lum tekki. dañoo wax ne lii mooy démocratie boo boo liiree livre bi rek war na mat quatre cent pages. Mhm. wax nañ lépp lu jëm ci démocratie ni ñuy organiser ay élections ak nañ koy voté ba ni ni mu war a demee ak lépp lu jëm ci élection rek mi ngi ci biir. Mhm. mooy démocratie universelle bi ci topp mooy organisation d' état ab état ni ñu koy organiser ak yan bànqaas ñooy nekk ci état loolu mooy deuxième bi. troisième bi. Mhm. histoire mondiale bi la ci def. mboolem trois cent juróom euh, maanaam ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñett réew yi nekk ci adduna bi. Mhm. lool rek am njàngal la ndax am na ñoo xam ne yaakaar na ne adduna bi tollu noonu. te adduna bi ñetti téeméeri réewul ak fukk ak juróom-ñett. ñetti téeméeri ak fukk réew ak fukk ak juróom-ñett réew mu nekk bind naa histoire am na mu demee ak drapeau ak na mu fare ak na mu amee indépendance ak lépp. ñeenteel bi livre bi coopération la. coopération ku bëgg financement lu jëm ci coopération internationale diggante réew réew. moo public muy privé def naa ko ci. monsieur le maire. cinquième bi histoire États-Unis la. États-Unis histoire États-Unis ba mu juddoo ba États-Unis tàmbalee ba tey. ak yan réew ñoo bokk ci États-Unis ak seeni drapeau. ndeysaan. li nit ñi xam drapeau États-Unis rek lañ xam mais boo demee ci États-Unis d'Amérique doo fi gis drapeau bi état bu ne da nga am sa drapeau na nga koy sampee comme ni nga koy senegal fii Sénégal. ndeysaan. ak seen histoire ak mos a nekk président bu États-Unis. wallaay wallaay ak ñaata ak ñaata ñaata dooba et cetera. boo ñëwee ci Sénégal. waaw. ma wax histoire du Sénégal. histoire du Sénégal. histoire du Sénégal wax Sénégal ñaata région moo fi nekk ñaata département moo fi nekk ñaata commune moo fi nekk commune yooyu ak ñaati village lañ am ci Sénégal. ndeysaan diggante village bu nekk commune bi ñaati kilomètres la doon. ndeysaan. loolu moom laa def. mais monsieur le maire. mu bind histoire du Sénégal. waaw te doo ci wax ñi nga xam ne dañoo am yàlla dafa def nu nu réussir ci métier mën yor. ndeysaan ndeysaan. ba ñëpp xam nañ ci. Euh, monsieur le maire yaa ngi yaa ngi bind ci waaw Kouthia bi nga Kouthia bi nga bind ci biir lu ko waral. acteurs politiques yi ñu ngi ci ñëpp ñu ngi ci. ndeysaan waaw. loolu la ndax ñetti ñeenti président yi fi nekk kenn ku ne wax naa bi nga nekkee président li nga def. Mhm. ndax am na ñoo xam ne léeg la ñuy romb benn bâtiment wala ñu romb dara loo xam ne dana yaakaar te xamuñu ban président moo ko def. ndeysaan. kenn ku ne damaa def si bilan. monsieur le maire daal wax wax dëgg yàlla lay gërëm. parce que yemoo ci nekk la maire yaa ngi xamal àddina bi historien àddina bi ñaata dëkk ñoo ci nekk drapeau bu nekk nan nga ko amee maanaam yaa ngi xamal sénégalais yi wax dëgg yàlla euh, sa xam-xam jëm ci li nga xam ne mooy coopération boo bëggee am financement nan nga mën a démarché nan ngay def yooyu yëpp ay jàngat la yoo xam ne livre yi daal macha allah euh, kañ la ci waa Sénégal war a jot nag. ku ca xam nga li ma lay leer ci loolu maa ngi ko tàmbali depuis 1989 maanaam am naa ci ak ak ñaar dem naa ci ñaari téeméeri réew ak fukk ak juróom-ñett. boo oh. xam ne dem naa fa ci recherche bi ndax am na loo xam ne ku ko bëgg wax ci am réew foog nga dem ci. foofu dem ci waaw librairie nag génn na fi mu nii. génn na dem ci librairie yi eh, da ko fa fekk am na France. Ah. am na États-Unis oh. ak bi yëpp kon kon sama tur bi mu ngi ci bi ba livre yaa ngi ci biir États-Unis ak France yooyu. lépp àdduna bépp. surtout dem na foofu. jërëjëf monsieur le jërëjëf monsieur ci Covid am. waaw ak prix yi nga le maire ñu ngi lay gërëm bu baax. di la wax nag dalal gi nga xam ne moom lañ la war a dalal ci suñu ay émission dañ bëgg nga ñëw ak sa jëmm jox ñu livre yi dédication yu daanee kontaan. incha di la ñaanal yàlla defal la jàmm. te xam nañ ne yow doo jàpp di yow bokk ak maire yi nga xam ne dañ leen jox mandat ñu ñu bàyyi fa mandat ba dem fekki président. yal na yàlla defal jàmm. kontaan naa ci yow xale yaa ngi lay laaj sukar koor nee naa leen monsieur le maire moom. Eh, jërëjëf monsieur le maire. incha allah nee na ci fan yi bu soobee yàlla kon mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant fi la jug ñoom seeti ki nga xam ne mooy Mame Boye Diao. maa ngi gërëm population de Kolda et parce que li ngeen def nii c'est pas évident ay nawle nañu et le président Macky Sall dafa bëgg lii ñuy eh, liggéey mu feeñ ci euh, dans le social xam nga am na aujourd'hui je vais vous dire am na ñoo xam ne dañuy def saccage social c'est c'est un mot que j'ai emprunté parce que Euh, saccage social c'est loo xam ne da ko war a def ñëpp jot ci nga yemale ko ci fenn rek loolu mooy saccage social waaye ñun yéen ñi nga xam ne yéen ñu tànn les populations de Kolda et eh, élire ñu ñi ci bëgg ñi ci bëri dañu bëgg gis seen bopp ci commune bi ak acte social yi commune bi war a def ak ci côté santé éducation ak environnement moo taxit lu jot rek dañ ci war a def dara dañ ciy def dara bu soobee yàlla. et incha allah la population de Kolda du manqué ginaar. et je sais que ne <laughs> Korité moom pour ginaar la. et doo leen manqué vermicelle ak petit pois. on va donner des dons ñi nga xam ne ñoo ko yelloo ñu jox leen ko. parce que am na ñoo xam ne mënuñu tàllal loxo. waaye mën nañ leen fekk fi ñu nekk tàllal leen teraanga. defaguñu trois mois. mais xam nañu statistiques yi nga xam ne ñi yelloo ñu jox leen te ngeen xam ne suñu priorité premièrement mooy fexe ba socialement kenn ku nekk doo am kersa da ngay siggi boo bëggee lekk di nga lekk boo bëggee naan di nga naan ndax mairie bi dina def ay fonds social pour jëmale ko ci ñi nga xam ne dañu diminuer et je remercie une fois encore la population koldoa ndax bu ñu bàyyee ñëpp tànn ma c'est parce que gis nañu vision bi nga xam ne moom nañuy doxal socialement dans nos activités parce que dañuy taxaw ñi nga xam ne ñoo ko yelloo di dimbali ñi nga xam ne nañu war a dimbali surtout la jeunesse à 80 pour cent tey bu ñu amee ndam c'est la jeunesse coldoise kon espoir boobu ñu am ci ñun ñun duñu ko yàq et li ñu bëgg mooy ngeen xam ne projet yi ñëw après Korité bi xale bu toog Kolda liggéeyoo c'est parce que yaay am taamu ne lii duma ko def mais nañu def ay infrastructures yu baax parce que gis nañu léegi le football est à la mode et bëggoon nañ nag vraiment à part euh, le jeune Diao la qui était à l'équipe nationale ah Diao Baldé ah Diao Baldé ñu am ñun tamit ay Sadio Mané yu bëri à Kolda on est en train de faire des partenariats avec des clubs français Paris Saint-Germain Liverpool on va faire des centres d'entraînement comme génération foot dinañ ko am à Kolda pour épanouir la jeunesse yi nga xam ne football moo leen intéresse et sur le cadre culturel dinañ def benn maison de la culture boo xam ne kon grand théâtre lay doon les jeunes vont rester a Kolda pour développer le euh, ah, culture seen culture dans le cadre religieux dinañ def tamit ay bâtiment yoo xam ne pour des spécialement pour le Coran ak mémorisation du Coran pour ñi nga xam ne dañu bëgg a jàng alxuraan fii à Kolda ñu gën a eh, am fu ñuy daje pour mën a def seen i waxtaan nag vision président Macky Sall rek la ñuy topp. vision am yemul ci benn place. dafa dem ba dépasser les frontières. donc nous voulons aussi que ñëpp ñun delluwaat. pour une victoire large aux législatives ni ngeen ma joxee victoire ci mairie bi noonu laa bëggee ngeen dajaloo pour une victoire très large pour les élections législatives ak parrainage bu leen bàyyi dara jàll. et incha Kolda va changer beneen xar kanam. danañ ko def ba nga xam ne boo duggee Kolda tu penses que tu es à Paris. dans le cadre de l'environnement boo duggee Kolda di nga xam ne nag yi dugg nga dëkk boo xam ne y a plus de souffrance. et on va changer le système de Jakarta indi beneen façon méthode boo xam ne moo gën a rafet Jakarta gën a sécuriser. عبد الحاشم عبد المناف góor gi baax mu baax mi nekk ci dend si dend géej yàlla ko yàlla defal jàmm nit ku yàlla baaxal ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram ba et frère yor agence immobilier bu baax di def loo xam ne wax dëgg yàlla euh, mbokk yi xam nga dara neexul nga liggéey ba retraité war a am kër continuer ci li nga xam ne moom mooy location waaye Euh, coopérative yi nga xam ne ñooy coopérative yi nekk société yi dama leen di xelal ne dem leen seeti ku naan góor gi baax dend géej agence immobilier ba et frère ñoo xam ne fukki at ci ginnaaw jaayal na leen suuf ba fa ñu nekkoon fa ñu nekk ba tey suuf sa nooy na am na aération auto plage fa ñuy jaar xale bu am jom du lekk riba du naafiq du dóor dàqe du tëj téléphone am la jaay la taxawu la yal na ko yàlla defal jàmm xaritu borom kër gii la yàlla ko yàlla may fan bu gudd ak wér gu yaram di kontaan bu baax a baax a baax a baax ci ki nga xam ne mooy suñu xarit suñu soppee di góor gi ba nga xam ne yàlla da ko da ko koo xam ne daal boo ko gisee rek bëñam ngay gis ba ba ngay dem góor gi day ree góor gi day ree day ree ba kontaan yàlla ko yàlla defal jàmm waaye nag kenn du Cerno Cheikh Oumar du Cerno Bachir Tall li ma li ñu ko defal sànq nii soxlawu ko de moom woowul presse bi propagande de yàgg naa régler ay problème Thierno Cheikh Bassir nii yàgg naa régler ay problème ci réew mi te kenn yëgul bii dañ koo médiatiser rek taalibe euh, euh, gisuma taalibe bi waaye avocat Coulibaly Seydi Mountaga Ali war naa daanu leer dafa jël Thierno Cheikh def ko ci xolam mooy indépendance mooy léppam awa Coulibaly bi nga xam ne moom lañ dénk Mountaga Ali bi ne ci régime Thierno Cheikh lay lay nooyee Thierno Cheikh Omar nit ku yàlla may la yàlla ku yàlla defal jàmm may ko fan bu gudd ak wér gu waa ki <laughs> gis nga mbir yàlla may wax wax Cheikh na kii awa awa awa. allo yaa ngi en direct ni sa sa sëriñ bi laa doon nuyoo tey. ah Kouthia maa ngi lay ziar. nangu nañ bi xolal xolal nag nii ki dama bëri ci kër. jërëjëf le bienfaiteur de la famille omarienne. liggéey lay ut de gis nga day jéem a xoolal xoolal day jéem a neex yow sa jëkkër ngi ci régime bi soxlu ngay ut liggéey di jéem a di neexal baat ana. ci mission baayam rek lay dox. ndeysaan ndeysaan. waaw bu wax ji bëree du moom mais bu jëf ji bëree moom la seeni taal. xaritu Xadi Gàkk moom ñoo nuroo même ñoo tolloo. yàgg lii nag yàgg na si Kouthia. waaw. yàlla Cheikh yàgg na si lii. ndeysaan. lu tey rek. jërëjëf. moom daa yor pusoom rek wallaahi waaw yow da nga doon woote rek tomb ci waaw awa kon ñu def noonu dégg nga. waaw jëf jërëjëf awa pata kontaan naa <laughs> gisuma yaay yaa mu ngi ree mais Fatim bu gisee nee na diggante Kouthia ak awa kenn xaju ci des fois dañuy jàppante ñaari weer xuloo xuloo yu metti waaye yaay ji moo ñu jubale kon mbokk yi ñu de tëj waxtaan bi ki nekkoon ci réalisation bi di Vieux Diouf moom tamit na ko yàlla defal jàmm technicien bu mag nabi bàyyil Vieux Diouf bi ngay sànni xeer vieux Diouf nabi déedéet vieux Diouf maa moom moom laa gis fii waa TV5 ñëw jël ko mu bañ vieux Diouf mi waa RFI ñëw nañ fii ne dañ soxla ingénieur en son vieux Diouf dee na du dem yow vieux Diouf dafa am ay film yoo xam ne yu bëri tourné na ko de te fii xam ñu ko de ay film yu bëri yu daw vieux Diouf moo yoroon son barki kay yéen xamu xaaral vieux Diouf cest à que nag vieux nag yaa ko def nag quoi a da nga baax de tour ba nga xam ne da ngay oyofal day def sa promotion bopp yow xam nga si dara yàgg na tourné ay film vieux Diouf waa TV5 ñoo ñëw signé ko contrat million pour juste rek deux mois mu ne dama yor liggéey te kii kii ku baax la yàlla ko yàlla defal jàmm vieux vieux de mun nga ko toog xam nga vieux mooy kan mun nga ko taxaw xaaral fii dañu war a benn émission mu taxaw xaar fi ba nga yow dem tëdd sa kër ñoo fekk mu taxaw soo ko waxee mu ne diw ko woon xaar yàlla defal jàmm may leen fan bu gudd ak wér ba muy yor caméra du tey ah, de dafa dafa am xam-xam de ah baax na ba pare nag baatin maa laa lay waxal am xam-xam de <laughs> ah mais mais moom nañ ko tegoon ci loxo bi moom nañ teg ci loxo bi vieux dafa ay ci divertissement ak culture ak ak réalisation journal am na benn benn télévision mu am problème Youssou Ndour ñu woo ko ne ko ban technicien nga woolu pour pour benn dëkk la Congo mais Vieux Diouf xam nga lu tax demul euh, euh, kii euh, jour boobu la am na daal lu taxoon demul mais dafa waroon dem mais am na lu tax demul woon safur la kon mbokk yi ñu seeti li nga xam ne moom mooy teranga alhamdulilah waxtaanu koor si yor koor teranga شيبة الحاشي ñu ngi gërëm ki nga xam ne mooy Bouba Samb mi nga xam ne wax dëgg yàlla di nit ku baax Bouba Mbuub ah, nga xam ne nee na ma incha allah Abu Bilal ma ne ko naam mu ne ma bul jënd ginaar <laughs> oustaz ma ne ko naam mu ne ma bul jënd ginaar ma ne ko lu tax mu ne ma mu ne ma dama bëgg élevage ba nga xam ne dama ciy foo ma ne ko la mu ne sama passion la am na yu ma yar kër ga nii rek dinaa ko suqi jox la. waaye ko boo gisee ku bëgg a jënd nag ñëwal ci man ma jox ko mu je mu je mu kii lu ma ci neex na ma ne ko prix bi ñaata la mu ne ma lu yomb lu lislaame lu halal moom moom moom buuba mbuub nekk fii ci TFM nee na ma nag ku ma xamul sax du ma la jaay ndax njëg la duma ci teg lu bari ndax nit ñi dañ koy soxla te teraanga la yónnee na ma fukki ginaar ak juróom-ñeent kenn ku nekk naa ko jox benn ginaar ndax ñu noonu lañ toll yàlla ko yàlla defal jàmm kookoy xaritu sëñ Jili Samba bi nga xam ne moom mooy yor ADSL alliance sénégalaise bi nga xam ne moom mooy consommé local bi te le 25 mai incha allah war ñoo fekk ci dëkk ba nga xam ne moom mooy ci Louga mbokk yi euh, dañuy waxtaanee nay nay nay xam nga nay mooy maanaam nit soxla nga mu ne la alma 1000 francs fekk yow yaa ngi 3000 nga koy àbb yow wallahi azim gis nga boo demee ci rédaction ba lee si seen biir am na ku fa gën a nay nga dem ci régie biir am na ku fa gën a nay nga ñëw fii ci plateau Kouthia Show seen biir am na ku ci gën a nay nay moom faw mu am ci doomu aadama di nga toog ak nit nag mu yor million di la àbb 500 dafay am nay est-ce que xam na ku nay du dugg àjjana ngay julli di woor dem màkka dem fu ne waaye nay nay xañ la xañ la àjjana wallaay du ay caaxaan nay waa ni la nay di xaye xañee àjjana noonu la la tabe di dugalee àjjana nay ni mu lay xañee àjjana noonu la la boo tabee mu lay dugal àjjana moo tax barki démb weer bee passé dama fayeeku sama salaire rek génn benn waay daw jàpp sama tànk yi di jooy ne ma dañ may génnal sama kër njaboot gi añu ñu reer ñu fi may waxee noonu doom ja téléphone bi nga kar mu ne ma déglul ma dégg waa ja doom ja di jooy ma dégg huissier bi naan ko génne leen bagage yi la ma fayee ko yëpp ma jox ko wallaahi jël oto dem sama kër ba ma eggee sama kër ma def arrivé war a def arrivé payé fekk ma fa soxna si taximaan ne ma señ bi dama yàkkamti de ma dugg ci bitig bi mu ne ma ñaata nga ko war a jox ma ne ko 2000 mu jox ma 2000 damaa toog as diir te xaalis bu takku nag laa jël sama salaire jox ko ma jékki-jékki rek benn numéro bu amul numéro. numéro bu amul numéro. mooy inconnu dama allo ma naam naa mu ne ma sëñ bi ci kaar ci kanam tuuti am na ku yoon yónnee xaalis bu takku bul ma tudd bul wax la xamoo ma mais dana la woo léegi ci kanam tuuti ma daa dee jot sama téléphone xaalis bu takku boo xam ne ki ma ko jox numéro am feeñul ma xool mu toll rek li nga xam ne moom laay fayeeku ma ne kon yàlla daf ma delloo la nga xam ne moom laa joxoon waaje moo tax nit boo dul joxe doo am loxo bii mooy joxe bii mooy nangu bii mooy nangu bii mooy joxe kon dee leen joxe pour mun a jot gis nga wax dëgg yàlla sarax balaa muy am solo da ngay woo ñëpp ne leen dama war a génne sarax est-ce que amul ku am yitte ci li may saraxe nga ne a ah man de am naa boro nga génne ko moo tax ngisal baaxul. balaa ngay saraxe ci biti saraxal ñi koy ñoo xam ne soxla nañ ko fi tele yi bëri dañuy saraxe rek fekk sarax ba warul woon génn ca tele ya nga la yasi waaye ñi taxaw ci buntu tele yi tamit jot nañu wax ak ñoom de bu leen fàtte ñi ngeen di fekk ci tele yi di leen tàllal loxo ñooñu dañ leen di fay weer bu nekk ñu am am njaboot bañu ñu de waaye ñoom dañoo nekk ñoo xam ne ci weer nañuy yaakaar pour dimbali nit ñi yéen kay dem leen attaqué ñi nga xam ne ñoo moom télé ya ngeen wax ak ñooñu. Euh, nay baaxul euh, boo nayee sax dana la indil feebar ndax nay dafay jàpp xol gis naa koo xam ne mës naa réeral téeméer jooy ko ñaari at man barki démb la ma sama fukki junni wadd fii may reetaan damaa doxaat tuuti for ñaar fukki junni walla yàlla si dama ne am na ku ma ko soxla koo xam ne il faut mu wadd ci man pour mu jël ko moo tax xaalis calpe bu réer bul ko jooy man lu réer rek dama naan lebal naa ko yàlla loolu lay azim waaye am na nay ci jigéen la bon am na jigéen yoo xam ne dañoo naye naye naye nay ba nga xam ne wallahi azim seen dërëm du toq loolu baaxul man de sama kër damay joxe dépense waaye sama soxna mun na maa seedal ne wax dëgg yàlla damay joxe ba joxe loo xam ne sax dafay dépassé am na ñoo xam ne wan rek ci wan mën nañ cee dépenser million ñoom seen wan personnel waaye pour jël xaalis may ko nit mënuñu ko am na ñoo xam ne nag ñoom dañoo am feebar feebar maanaam ñoom jël xaayis may ko nit ak dee nañu yamale am na ñoo xam ne kenn mun nañ la may euh, euh, nabi mun nañ la may un million waaye doo leen amal xaalis am na ñu mel noonu gis naa ci ñoo xam ne mën nañ la may un million mais boro cinq cent dañ la koy topp fayeeku leen parce que ñoom loolu moo leen di dundal xam naa ci benn femme bu bu tudd soxna Mati Samb dëkk ci Padoa mën na laa may dix mille waaye boo ko amalee trois mille moom da ko fay da ko day mel ne alalam nga jël te mën naa laa may dix mille léegi léegi nday joor fayeeku la trois mille am na ñoo xam ne nag mën nañu maye mais mënuñu fay bor waaw mënuñu mën nañu maye waaye mënuñu fay bor waaw mënuñu mën nañu maye waaye fay bor am na ñoo xam ne mënuñu ñaan waaw day am am ñoo xam ne mënuñu ñaan waaye ku réeré ci xaalis bul ko jàmmat yàlla nee na boo ma lebalee dix mille ma fay la cent mille moo tax man damay wër di lebale rek waaw ah ku ñëw nga porte plainte